fa jaan la yeewu moom di daani dooleem baay balaa mu dellu si di baay papa mu ndaw mi sax di xamul baayam booy man Ibra dama la gëm fu ma amee problème wet di Ibra yënga coow li coow li fi am fan yi sama càmmiñ ji nga xamante ne dawoo ma benn yoon yënga li fi xew lépp fii ci ci gargot bii inondation bi amoon wala inondation bi am na oh. ba sama càmmiñ yu baax yooyu wax naa la ko ñoom baayu anta waaw waaw waaw ñoom Pape Saliou Guèye financé ma gargot bi taxawaat mais yëgoo li ñuy li dëkk bi yëpp di wax non loolu yëguma père bu xadde dégg naa benn garant bu tudd xaw ma bala mañ sa sañ sa xaw ma bala ma nen moo ne ko dama lay jëndal gargot bi per nag mi ngi ñaan lu fépp non ban gargot bii. bii bii per bu xar fi mu ne nii xoolal boo xoolee tànk droitam bi mi takk set petaaw bu góos bi la mu xale yu ñuul yooyu ñu pour ñu bañ ñu tiit kii da nga foog ne sëriñam da ko bëgg a rey. mais xam nga yaa le le temps passé amoon nañu fi ay problème man a yow mais doo comprendre ko am na ay rumeur parce que per boobu nga gis na xam nga dafa am mais jàmm jëmër dafa am. doguma mais est-ce xam nga ne Sénégal ñaar ñuy ànd ñuñ gis mu war a dem ca kanam ñu saltel diggante bi mais mën a sant ñëw fi coob guddeeg bëccëg même day monté ci télé bi xoola ba tànk yi jër même bu amul bu ñëwee danga koy jox mu lekk it baadoo la mais fii de ah. waxuma moom sax xoolal père bu xar day nëbb atam de fi mu ne nii moo sama doom ji petit laay ñoo tolloo te pere ngi ci cinq cent ans non mais man je pense que ah dégguma dégg naa moom sama ça na nga def ça va bien yaa ngi ci jàmm maa ngi ci gëj naa la gis de ana waa Italie ña nga fa yaa ngi si émigré bi pardon pardon allô ne quitte pas ne quitte pas ne quitte pas oui euh, gel kii ah déggu ma dana mel ne wanteeru baal ba waaw je t'appelle dans cinq minutes ok ok ciao mais si ça alors. waaw ça va bien naka Italie. ça va jàmm maa ngi ci jàmm. gis na kii euh, ñoom amoo ñooñu. amoo waaye daje nañu benn yoon. ñaari waaye ah. sinon. gisoon nga ma sama càmmit ju baax ji ñoom Pape Saliou Gueye Baye Omar. yow nee ma nee na ma xaritam sama ah xam nga ko Suisse la nekk. Zurich xaw ma njar. mi ngi non mi ngi Zénith. ah mi ngi Zénith. waaw sinon. moom moo ma defaral fii moo may un million defaraatal ma fi yëgoon nga sama problème bi. oh lan moo la dal man jaaxal na ma parce que dama ñëw fële. gisoo ni ma changé place bi damaa inondé ñoom ñu daal di ma jëndal place bii. daf na lu rafet. sama càmmiñ bu baax bi yow itamit xoolal macha allah dangaa dem rek nattu dal ma ku baax nga te danga ma jigóor. mais nga woo ma bi may jox naa la sama numéro. mais dama laa rusoon woo. non ah non yow sama jigéen nga voilà. Ah, dëgg la dëgg la booy doucement. peut être am na ndox mu ëpp ma gis ko booy bi quoi boo yàgg tàkk. ci lan mais sama réew ni nga bëgg a nekk si town bi wooy. booy lan la lan la lan la lan la. mais yow xam naa la booy la fois passée yaa lan nga ma xàmmee. booy yow xam nga mbib ku mën a mbib dañ naan fenkat dëgg moo yow booy mais gis nga yow yow doo comprendre gis nga genre mel ni xoolal ñoo lay dugal ci da a naxante indi la woon fii xoolal dama ba mat sëkk booy yow ma ci ah, ko moom exagéré nga non waroo ma sëkk ñu yooyu man ak yow rus naa baax na sama càmmiñ Ibra naxant non naxantel ba jotaat say nit coow lee inondé woon fii bàyyi rek mi ngi nii commencé waat xiin doo comprendre xoolal mi ngi Ibra allo dimbale ma rek. waaw New York waaw. waaw waaw. Mbaye Diop Fary waaw. gis nga poto bële. waaw poto bële poto bi saful ciment. waaw te bëgg naa koo renforcer. dëgg la dolli ko mu gën a taxaw. poto bi saful ciment paaka bii la fa kii rayé teg. Ah, ah, oui ah, te te dem na waaw kii du kii du. allo New York. may wax wuy ma. na syndicat. syndicat genn fa lay nekk ndekete di yenuy dàmb. bu boobu kat bu ñëwee ne denc daje nii nag di ratatat di meew rek di teg naan damay tukki damay siwis ak damay Genève ak damay. te demoo eh, xamul ma yaa mën a fenn. yoonu kolobaan da yow dootoo fa jaar. xam nga lu eh, ma bëgg eh, yow ñu ngi ñëw ci yow. jàkk xool doo xàmmee nga. ñëwal xàmme a kan mën a kan. per bu xar. a brigade père bu xar. très bien bouge tes fesses allez door. Marie jógal. non attends. Marie dëgg de dama fi bañ indi problème. non xoolal non maa la ko ñaan. dugal nga dem booy man ngaa dee daa dee wala man di mel ne moom. doo dëgg. Hmm? Marie naa ma. doxal ma naan amul problème man xam naa da ngay koo dindi. xool ko mu mel ne xool ko door may fayda di mën a di toog di meew. mais booy bi mën naa fena ah. ba pare pare di ko xelli li bes waa kib doon bu bes ci biir rek doon naan de. leer na ma ni booy booy bi seere na caay gel ba tay doon nëpp nii la ñuy def di war di meew rek. boo matul passeport demu. passeport rek di bal maag doy ku da ceeb. jaayu ma la ah. la man lay jaay. yaw ah. te du moom bu yoree gargot bi yaay nekk client yam. waaw jaayu ma leen. xam ngeen yéen ñaar bi ba doola dinaa ko jaayu ma leen yow bis dana ñëw eh, ñuy jaay. wuyu ma yaay ras mis ki moo yuppi. kon de yow yaay lékki-lékki yow yaay yow. xam nga ay traite kuy wër traite ba jàpp leen bay ba mu wër. dikal dikal dikal. parce que kii ni ngeen mën a nekkee ay ati at ngeen yéen bu ngeen amee lekk bu ngeen amul lekk. carnet bi yéen a ko feesal mbënd mi ñëw laal ko xoolal ngeen di wiir yow nga yow per nga dégg naa da ngay ñëw jënd gargoor gi quoi. doy. mais bu bu paree la yow ku la rendoon yow ndox mooy génn seera mais du nekk deret. jërëjëf Ibra jërëjëf lii bu amul woon ay. ay ah. man man gis nga. yow mooy xoolal weeri samra weeri picc. yow da nga war a booy bi doo ko teggi ba mën a jàkkaarloo kon gisoo ma fi nekk nii. parce que da nga ruus quoi moo tax. dëgg dëgg léegi. xam nga lu ma lay xamal. ay ay ca. jarul nga daan ma xudd sa bëñ yi mel na koketi mbaam ni ngay sañ-sañ maa la gën a nëb gën laa yàqu téeméeri junni yoon bu fekkente ni yow bëggu avancé ci sa bopp man bëgg naa ko avancé ñàkk nga fayda ñàkk fu la pati ne la dégg dégg fii palaatu ceeb tax da ngaa guitare ak ba yëru tooy we mais man damay joobaa yéen joobu leen yéen xoolal lekk bien fait parce que eh, ay gargoor wala leen ñëw di jënd ay gar naa da ngeen di waxaale gargoor bi yow dama yor dara yow pa ca la gol per per kaay per. kaay per. yaa ilaha illallah. am am looy piqué yow. la na ko jërëjëf. per denda. per. yaa. Eh, eh, eh, lii la la nii lii per bu xaar toogal ah. per lan la. Ibro doolil beneen doolil beneen. da nga am looy da nga am looy wax. Ibro doolil doolil rek ñu jekkali ko. waaw c'est kat sa laaj. toogal toogal toogal toogal. kii war nañoo fi daal di jënd ay gargaro ah. te yorul ñaar dërëm. waaw ok naa ko rek toogal. mani per ndeket toog per dem leen bi. per dem leen toog lan la yow lan la loola lan la lan la dem leen toog dem leen toog doyen. ñaw dem leen toog fuul mu naan damay jënd garab da ngay toog da ngay toog sax wala mu génn si. côté lan lan lan lan. mais man dama sonn lépp lu ma mës a def sama àddina nit ñi ngi koy essayé. Ah, affaire boobu ba tey ah waaw da koy jënd. waa ñii euh, ñoom sonal nañ ma quoi. Euh, per per. mais doo créé sa liggéeyu bopp mbaa sa yëfu bopp. mais doyetu la nga bàyyi ma xel lu ko def ma def ko. per kon yow li nga doon wax dëgg la si yow quoi. bu la na la dama lay jam. li nga doon wax yow dëgg la si yow wala bu tilim jënd gargot bi yaa ngi ci ba léegi. waxal ak kii dëgg la si yow. gaa dama waxoon wax jënd gargot arabe baax na ci bu ko waxatee loolu yi yaanu ndewee jënd gargot ah waaw waaw waaw boobu maa ko ba ki ki ki jënd gargot ki defal nak non yow koy man man ngay door marto ibra bàyyi lu gaaw dóor booy bi di la nañ de dara dara di gaaw dóor booy bi la nañ bàyyi li ngay def Ibra dégg nga bul dooree mais père xam nga lan laa bëgg a xam man. yow lan moo la motiver pour nga ñëw jënd gargot bi. booy wax naa la ko du benn du ñaar du ñett du ñeent bala may sa sañse moo may financé. waaw mais naka gargot bi jar dana ma ko jox. mais naka dégg ñu ni kii day jaay day jaay naka dégg ñu ni kii day jaay euh, eh, gargot bi. xam nga lan la yow kii buy jaay ak bu dul jaay sooy nekk ca sa costume fëgg jaay bi. doy ka ca ba mu ne Fanta moom moom dama ko. yéen danaa bëgg a dee ci coog. ka ca ba doon faxaj. mu ne faxaj teeyul dalul yow loo nar a jënd sax da nga wax dem. maa koy jënd. yaa koy jënd. te waxtaanoon nan. waaw ci dil nga jox ma kàddu ma la kàddu. ma delloo ma kàddu ma delloo ma kàddu. ma wax la. waaw lépp yaa koy témoin. dana day jënd gargot premier deli deuxième délit bi dégg naa gëj naa fanaan ko ñam chef de quartier koy wër ndax ci jabaru jàmbur lañ ko fekk. Eh, ah, ah, waaye loolu yaa ko meew. dégg naa ñu la yaa ko meew. waaw man ak kàcc nga def ko ca àll ba ñu wili pande la nga naa ma yaa ko eh, eh, doo bàyyi kàcc. per per. yow doo bàyyi. per eh, yaa sàkku naa ma. femme de un homme. non weer nga de. mais Guèye wuyu ma yéen wax dafa bëgg bari sax quoi da ngay xool da ngeen di toog tranquille mënoo xool. toog ngeen génn nga génn si biti. non non da ngeen mën a toog wala ngeen génn si coow laa wax. non ma xaaral dama lay wax ba pare nga dama budul la man mais mais amul seetaan gëy ñii ma abal nañ ma abal gëy oyal ma auto romance oyal ma auto romance ñu yóbbu leen Ibra toogal rek waaye yow man boo berde booy non non fii xoolal dafa am règlement bu dox léegi ban yow règle bi fii dox yow règle bi doo ci bind doo ci rëdd yow waaw déglu père Ibrahima doyen. mbëkk père moo xam. doyen maa wili mu ne danga yor sa bopp mu mel ne birig. nan nag marto ngay war di mbëkke. doyen ma bopp booy bi de. booy bi yow lay tiital man faale wu ma ko. gargot bi taxaw naa te saa sa xoolal xam nga segub ñaata la ma bindal. bindal na ba segub deux millions cinq cent. suba suba laa koy retiré man léegi suba la jàppale man daal pour ngeen xam ndax gargot bi day doxam dox sama euh, euh, euh, géwél gu baax gi may wéyal samay géer anañu wéyal man daanaani amina neewoon naa la dangay doon waaw liggéeyu ndeyu doom la xanaa na gay dala sagal waaw gay almaami mi dala teral. waaw déggoon naa de. Ah. da nga inondé woon waaye doo mës a inondé. nga tey càkku door ko yëxul yëxul yëxul. am na mën a njaay. maa la dàq way. waxoo fi dara. du ma yow te doo man. waaw bëgg promotion. ah promotion bëgg ko. yow yaa ngi fépp ñëpp lay wér. amet wutal nen. du ma sa morom man ndaanaan la waaw kay cooli cooli la isma jënd nañu karbon bi mënoo leen ci dara amet wutal neno njaay waaw doo ko bëri non non non dimbali ma amet tu sais très bien dinaa la boole non la faale non dinaa ko boole boole dafa soxor xoolal kii dafa soxor soxor a tax doo jënd dara ndax ki nga àndal dafa soxor dinaa ko boole doo duura ah, Pod boole koog Ibou dinaa ko boole Ibou ngóone tey sax dem bers da ngay dem bers yuuxul ma ma jigéen ma xool loolu sira ku malaw beeg buubu borom benn pat daal ba ca kawoon elimaan sa yaay ji ndoy soxnaay sa yaay layoo bi jeeg su doom yi màggi leen atte na maag yéen jërëjëf kon nag tamit wasaana waaw wasaana merci yaa yëkkati ñuy traité gazon yi mais Guèye waaw na maag ñoom